bi daxee noonu moo tax li Pape Ousmane di laaj bi débat wu cinquante cinquante boobu nañ ko jël teg ko fële bay wéy na mbuus ndax danoo yàlla daf noo natt woon ñoom ay cuune ñu yore suñu réew nanu leex nanu kaa tuddee gannaaw respect beeg warwa bi ñoom ñàkk nañu kerse ak ñun wan lu bon ba pare nag toogaat fi di wax bay bay am la kilo de nous parler de passeport diplomatique <laughs> wuy ma 89 loolu am ñuy wàcc di ñëw ba yàlla defal defar defar mbir mi président Abdou Diouf toog bu jëmmi jamono Sénégal yi naan dafa ñàkk fayda waaw jàmbar la rek lii dug li nga xam ne benn voyage lañu koy def <laughs> xam nu waxi mbedd la ñuy wax ñu toog jëmmi jamono président am daal jaxoñ loxo bi ndeysaan ay bu nu geeroon <laughs> daal ne ay bu nu geeroon sama maam bi sama baay bi mm. mankaan nuyu moo Fabien nag njaboot gi yépp ak sanu yaay ba tata Elisabeth maam ba mm. bàjjan ba xulil mu naan ay bu nu geeroon Sénégal yi naan kii li muy wax nii histoire di dem ñu dem ba jëmmi jamono xam ni yépp naroon nanoo taal suñu dëkk bi ñun mar di si foofu la ñuy wax mm-hmm. moo tax njiitab réew bala moo signé daf ko war a xool xoolaat ka mm-hmm. le président Macky Sall ak ñamu àndal li ñu fi signé ci lu lu bon kenn xamul nu mu toll mm-hmm. boo toogee ñu naan la ah attention trois cent milliards yi war a dugg jamono bii war a dugg semaine bi bu ma juumul te tubaab yi téyewoon ko ci covid ba ak ca ca ca ca période du pas Covid période euh, tension yi fi amoon deux mille vingt et ba tey. baa xam ngeen ne alal jooju di dugg dafa am fu moo yem trois cent et quelques yooyu ñuy wax vingt sept milliards xaw ma. ñëpp naan waaw président Bassirou Diomaye ñëw na xaalis bi dugg na déet état continuité la xaalis bu dugg la. Mm-hmm. sauf que xaalis boobu dugg la ay bor la rek. Mm-hmm. waaye bor boobu xam lu grave. Mm-hmm. su ñëwee nekkate yey jaay ca lañ ca jot xam nga lu muy demee day fay fonctionnement ay salaire ak yu ni mel xam nga kon nguur gi fi nekkoon rey nanu ko nu dee mm. maar day um si yàq coow am lamal kilifa yi di xamal ne ma xullin ñoom malgré la crise dañoo continuer seen ay privilèges waaye ñi bon ñi xam lu bon te tiit te fifi nga paaral léeg sax waaye di dof mm-hmm. parce que sëñ bi am na alal joo xam mënoo ko lekk koor sàmb mm. am na loo xam mënoo ko lekk nga ne ko tuŋaañtee nag ba pare di ngande nag doon doon ab bëya bëya di dem rek kenn xamu foo jëm. kaay ma wax la xam nga danga bëgg musique. ah xam nga da nga bëgg musique. dama lay dugal ci musique. ban ñoom ba ñu fi nekkee ci ay jamono dañ ñoo dellu si waat ci jamonoy xoslumaan maan loo fi naar. Ah, waaye Bassirou Diomaye Faye ñëw indiwaat caabi bi bu Aline Kassé caabi bi caabi bi. da ngay delloo lépp da ngay delloo ba mu ko ne jàpp caabi ba ca pale ba la ñu waroon a xam ne c'est fini. kon ko tey ci nga dolli si robine robine toog muy dox de tëj nañu. toog muy dox <laughs> robinet robinet ba tëj na de. tëj ah, toog muy dox. caabi bi c'est mhm. ah, alamin alhamdulilah. am na de li Ibrahima waxoon ca ca ca pare ba ne lan. dara du ko dindi def nañ fa ay sungu fa yu kenn xamul. yu ñaaw a ñaaw eh, wa eh wuy ma nanu fomp gris yi fomp wuy ma koor. nanu fomp gris yi pale bi. nanu fomp. lu tax fomp nanu rincé waat kado yi fépp nanu ko fobeere waat xam nga léeg-léeg man loolu mosuma ko woon xam. Hmm. moo tax kër yi ñuy fobere nii di ko fomp ni nanu koy xool bi ah. ndekete dafa am ay saafara yu ñuy def ci fobere yi mm-hmm. di ko fompe kër gi mm-hmm. moo xam ndax dañuy téye kër gi moo xam man xamoon lool ah. pale ba nanu ko fompaat wuy ma nanu soppi dara yi nanu dindi dindi bon kilifa yi wax nañu ko nag meuble yeeg yëpp daanu ko xoolaat am nañu ah. parce que parce que ah la woon newoon mur yi nanu toj xolil nanu tojaat am yu ñu génne yañ fa baraase yi ñu te def ñu dindi plafond yi lampe yi nañu dé dévissé mm. dindi teg yëpp xulil mm. mm. fu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye am bureau ñu naan bureau bi moo doon bureau président kii na changé bureau de waxuma la changé bureau sax waaye nañ seet kuy dugg ci canalisation yi canalisation yi muy ma sorti maa eh, kontaan waay eh, eh, samay wax day guddee rek samay wax day guddee rek maa kontaan sorti sorti sorti ba ca ginnaaw ah. jàpp sorti droite est ouest nord. miin nga pale yow jàpp la go un ak deux sorti ya sorti ya in and out yooyu mhm. nanu ko reese te xool ñu fa nekk ñu faa toog fa daan toog ma dolli ci infiltré yi nga xam ne mm. infiltré yi nga xam ne dañu nekk ci ginnaaw pale ba fa fàqmaan ya nekkoon ab laa da fekk leen fa may leen xaalis ah, def leen nag ay taalibe ak ay yalwaankat te doonuñu ko kooku maa ko dolli ci information bi dañ leen def ay taalibe ak ay yalwaankat te te doonuñu ko moo tax may sàkku gis nga sécurité lu muy nëbb gis nga sécurité waaw eh, yéen a ngi wax de ah loolooy dëgg nee na sécurité dama ne eh. xam nga foofu Ablaye Wade ba mu fa ñëwee hmm. fàqmaan yam fa fekkoon xale yi nga xam ne dañu xawoon ren dafa génnoon pale bi ñëwoon doon leen may xaalis hmm. mais boo xoolee jamono ji mbooloo bi bëri nañ fa lool ñoo xam ne dañu am euh, comportement nit ñu doyee di ak ñu manqué hmm. wala ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñooñu doonuñu lool de fekk leneen lañ waaw doolu ñu ah, danoo wér ping xulil doolu ñu loolu kon dañuy eh. kon ñooñu dañuy ping ping lu eh. Bassirou Diomaye Diakhar Faye monsieur le président de la République hmm. am na guy gu nekkoon foofu ca palais ba guy guy googee guy gaa nga fa ba tey non dañ kaa daaneel kaka daaneel nag moo tax la ko daaneel ba eh, wuy ma am na benn jamono hmm. gars yi ñoo doon bëgg dégg Pa Pa Ousmane est-ce que est-ce que xam nga ne est-ce que xam nga ne président Macky Sall ak ak jabar Ibrahima mhm. am na dama lay may rek am na benn guddi am na bu tiital na bu xale la. ca biir pale ba. xam nga fu mu guy galal waroon na waroon laal. moo tax seen buur nër mel guy yéen fekk guy guy googu nga xam sanu ay maam ca sanc gu dëkk ga xamu leen lu guy guyee at wu jot lu génne sarax am lu nu def ngeen ne fréet fokkale tiit ñeme foncier fekk guy dem li ko tëj bu ñu tëddee guddi ñu dégg naa daal ba gudd dama la dama la bëgg wax ne Pa Ousmane dama si bëggoon dolli rek. Ah. mais gis nga Macky Sall diir bi mu nekk ci bopp nguur gi moom ak soxnam. <coughs> Macky Sall ak jabaram Marème fay Sall. maanaam sëriñtu ak seetkat. gis nga ki ñuy wax Mariama Sarr. Mariam mm. Macky Sall dem na campagne Kaolack. Mm-hmm. soxna si nekku nañ dem ma yóbbul si benn faamu seetkat bu mën a seet. pour wan la Macky Sall ku gëm mystique la ak voyance. gis femme boobu ko seetaloon bi may nekk Mali sama benn jigéen bu ne Suisse. Mm. femme boobu xaritam benn bakke daf ko woo dugal ma ci appel bi te femme bi xamul ne. man la dugal ci appel pour wala Macky Sall la pale bi da ko doon cumukaay chaque instant parce que moom ci loolu lay dox xam nga Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla yokk leer amiin yaa rabbi Sidi Lamine Sidi Lamine waa Sénégal dañ ko amel njukkal da xool Cheikhou Charifu yaa ngay fàttali ko Charifu mais bi mu fi ñëwee Sidi Lamine léegi la waaw Sidi Lamine moo génne mu ne leen xale bi <laughs> léegi rappeur la ak jaaykatu yàmba dama koy gis si réseaux sociaux yi sama xol bi dara des ci Sidi Lamine daf ne leen xale bi hmm. mokkalul alxuraan saay saay mais jamono jooju ñëpp daloon Sidi Lamine ne Sidi Lamine bëggul jàmm nitu fitna la mais ñaata at lañ si teg yàlla jox dëgg Sidi Lamine Sidi Lamine moo fi njëkk a wax ne Macky Sall fekk na ko ci avion hmm. muy lire livre franc-maçon yee sénégalais yi ci Macky Sall yee na leen ko de. Mm. mais sénégalais yi dégguñu Sidi Lamine. ba muy wax ñu naan non Sidi nag metti nag. dafa war a def ah, ndànk dafa war a def ndànk mais le temps nous a donné raison. Mm-hmm. gis nga féticheur boobu ma la waxoon moom lañ jëlee ind. Mm. émission bii di ñëw dinaa la révéler révéler vraie identité am ak fi ñu ko logé woon ci. fan si fan résidence ci fan résidence. xam nga man xam nga dañ yàgg ci liggéey bi li xale yi di wax ay bës soxlatuñ ko ku ñu xamul mooy ut loolu. Mm-hmm. ay at man may may xam Ousmane Sonko kenn xamu ko ay Bassirou Diomaye Faye mais bu ñu amee la bonne information kii di chronique moom li mu gëm loolu lay